to man salaam aleykum man naa dafaar dëkk Paris dama feebar nag ma dikkee ñàkk a lekk dikkee duma lekk duma naan su naan ba tuuti laaj naan may jeex may jox mu may ñi sax ma ne ba lu ma lekk mu dem ba si bopp daf lu mel ne ay bum di metti lu ma nekk suuf mu njaay yi nekk du ma dara mu def ma may jeex bi ma sonal jàpp si ak pël ci bi ñett may soomu ni ma def lu ñu jàpp bopp ma daal dee war ak yaram bi jàpp ma sonal mun ma lekk dara ma demee hôpital ñu bindal ma ay akalis ak ay royo ma am ma def yi nga am ma def yi nga amul def ma ko ñu bindal ak ma yeneen ba jox ma ma demul bindal ma OP ñu bindal ma yore dama def ko ñoom la nga amee ami daal ñu di ko deret ba nu mu ne koy dindi ñu bindi ko jànnatu laa ko ne woon Tuuba ak benn hôpital bu nekk foofu léegi moo ko dindee moom yaa ngi woon ay six mois lañ toll woon ma dindi waat mu mel dafa ñëwaat commencé def ay bum yoo ñu metti su may waraal su may metti lu ma def daal ma lekkee sama bari damay sonn damay gis lu oyof raamal lekk lu yam ma lekkee ceeb sa ceeb daf may sonal day gis ci man ma bëggoon a faju nag xaw ma ma faju faral di may ñaan di ko waaye dimbal la jaar ko lu ko faj yaa rek tax ko waaye woo mooy si la ko mën a présenté ak jàppale wala am ko ne loolu laa bëgg taal yi des fois ci maam ma ni ñaam ma ay def def la ma ay rab seytaan yëpp te demee woon moom ñooy walaal ci ñaaxal la defal dëkkul mu waay mooy dëggal ak waay yaakaar muy tubaab muy olof muy tubaab mooy dëggal dara ñu mën a la fay